يلا درجان فضماه رسول الله مليون بدل عن مالك بمرثياتي خليفة الشيخ بمبشياتي ماذا تاريخ ينبدون لي ولا تقم في العم ميمان ci dara ja am ngëneel yu weesu xayma cey yàlla cey sëriñ bi maa waaru warkat bu mag ba war na daaru kadoon sangu murit yi tey maj soobu jëm ci boroomam yàlla ku nekk lu mu deeti jublu nay mu xam mbaa ko moy du jaglu xasu fanaan ba wuutu wan مقول يجل بسك نتي باين بان مدم جا قمر في القوة جلوري يمفيد أفسي من نجف فوري مجك العاوة ومريدي تيم مجسوب جمشي برامان يالا كنك المدي أتي جبلو نيل محمد بالكم محيط جاكلو فسفنا عن بعود ورن يا بابا نكن غالي غدو ما قال يا جلد أسلك يا نادي بايم بان مادم جا يتلنا قحي يلنا سيئر جف جا ما جوائد أمر في عالقوا واحد جعلوه يمو في دعو سيئر من نجيب فوريه ما جوكلا عاوه waxi si am Muusaa Ka sama siiraam maam Ceerno gëm na baax ga bilaa fanaan garub saxoo di yaale xale layu bu Ahmadal Mbakiyu am ngëneel yu weesu xayma cey yàlla cey sëriñ bi maaka waaru warkat bu mag ba war na tuuba ak daaru ka doon sangu man la ya gisuma wenn te ñu wax yàlla mbaa yaa jàbbaaru mbaa yaa xaalis mbaa kenn nee na yàlla ne ma fallaa yóote xikmata man isaa wala usul falil hakim tuddee ma ko nee ma tuddee ko mu ne bàyyi koog man nag bu ci dem benn temps moo tax yàlla kenn du ko dimbale ndax lu wax sama bàkkoog moom moo tax mel noonu yàlla darajaal fa bamba البيت ميان عن مدل عن مالك بمرثياتي في سيف بمبسياتي ماذا تاريخ ينبدون لي ولا تدم في العم ميمان كذا رجع مقني ليباس وخيمة كي على كي سرين بما كوارو warkat bu mag ba war na tuuba ak daaru ka doon sangu murit yi tey maj soobu jëm ci boroomam yàlla ku nekk lu mu di aati jublu nay mu xam mbaa ko moy du jaglu xasu fanaan ba wuutu wan soo bambaan nekkan xali wadu masoor yaa jël magam ja wéetal na gox yi yal na seeru jëf ja ma jooy gomar seel go wax jaloore yi mu fi def seemal na jëpp fuur yi ma jëkk la wax waxi Seex Muusaa Ka sama seera maam Ceerno gëm na baax ga bilaa salaan garub saxoo di yaale xala layu bu Ahmad al Makiyu dellu si yóbbu ahmad al mbakkiyu du bàyyi sunu maam ceerno ibrahima kalee di xaadimu kalee mahduumu yee bay ngamee gox ca way wa demuk sëriñ falilu loolu ay lay wa walaay xam naa ni demam gi mbas la ku toog faraas ba dal di xam ni mbër la ngoonu faraasa dafi mbër ni fonte nee gàmmu jël na fi mbër mu am xolam te sàmm adduna war nga am te war sa bopp xam ne ni léegi sa rab ala ba ji ci aw seesin jantam ba mel jee doon nga aljeeri wax na jëm këram gannaaw lu biir xel yi gëlëm yi yëpp ma ase tàng rangooñ yi di tuuru cër yi dong wase yi ak watiir yi dafay njooxe يمسي كلمي يعلم به سؤال مريد أبو بخادر أبو تيدان يبقى جعيا أقصع سلطان يحخل تبج اخر أخل فراسي يلعب دمم خرج بسياد البين جند أمير مريم فعلب تؤمن معالي سنغبا بيبكر وكوات طاق جلبا ركم جمعان تبعك تعرم با ما يوكرم تعرم بجأكو بريه waa Mbàkke ñëpp a teew di seet ci addiya waa kër Sëriñ Tuubaa ñe ñëpp a waaru bisub keroog a ngooñ yul di tuuru keroog sëriñ Seex Mbàkke Seex Mbàkke keroog sëriñ Seex Mbàkke sëriñ ñëweñ bisub keroog la koy di soxlaam salte yu laab di jokkalante ay saraam bisub keroog dellu na wat lay naanu leew yi IBM bii sang moo tiimaan sallilu wanga asigar ya dem baar ca diggam ak jumaay ja moo doy waar mu dara daxu saa Seex Bamba la keroog naroo ko lem na biir ba mu dara dax si saa diggam Seex Bamba la keroog ndegete lem na biir ba dal ni murid yi ngeen abal ma tuuti laaj lat ko lañ tuuti بمكبا أكبر بعد دارو قدوا أنسانهم مريدي تيم مجسوب جمشي براما مي الله كنا كالهم دياتي جبلو نيل مخم ما بالكم وحيدو جاقلو خلصوا فران باوتورا يا بابان يا كان غالي ودو مكان يا جلبا سكنا دايبا ينبا مدام جاء يقلنا قهي يلنا سيار وجفجف ما جاي قمر سيار قواه جعله رئه يمفيد أفسي من جب فوري ما جاك لها وخ وخي سيار موسى عاكا كما سيار مع امتعار مع قمنا باقا بالله فلا قالوا بسعه هذه يا هذه قال لا يبو أحمد المكيو dellu si yóbbu Ahmad al Mbakiyu du bàyyi sunu maam Ceerno Ibrahima kale di xaadimu kale mahdumu yee bay ngame gox sa way wa demuk sëriñ sa bi a doom bu leen doon taalibe waxaale bàyyi ñu ne ko faar luy waxaale bàyyi mu ni boutique ku ca dem biis boo lamb ñu wax la njëgg te jëndoo doo sol waxaale jënd mooy tax a sol waxaale bàyyi nag mooy jébbalu ci sëriñ gëj koo gis mat fanweeri at ba mu daje yow dëkk sàngam nga naan ko maa jébbalu woon ci yow ca roon garab ga kër bàyyi diw boobu taalibe ak sëriñam du ko gane am xelam du te ne kooku mooy waxaale bay waxaale jënd nag ci sëriñ mooy jébbalu ci moom amuk taalibe di ko siyaare di yóbbu sa addiya tey jiital addiya sëriñ Modou Bousso Dieng moo ko waxoon ci tukkeem ñu nga yëg wax ne ah dee leen jiital addiya soog tee seeni soxla ndax addiya loo ko yan mu attan ko waaye bu ngay jéetalee seen soxla ba fàtte addiya addiya dara da ko attanu kon dee leen jëkke yi loolu nag seen xalifa ñun ñii di wax seede nañu ni daje nañu yow kër Cheikh ci aliya ay yoon yi yoon loo fa nekke ak taalibi boo xam ne mën nañu ko seede ngan ngi nag sonn na ci coono boo xam ne dara manqué loo jàpp ni mooy teraanga def nga ko ci woo say bokk ñu wuy si la teral sëriñ bi ci mbégte muy xasaayit muy sikkar muy lu mu mën di doon ba ci yëngal seen yaram sax muy lii doon def léegi muy cosaan cosaan dafa foor dëgg dëggi baadoo la mi ngi yem ci gane si nit mu lay teral xéti terangam yëpp bay indi cosaanam nga di ko bañ moo waral sëriñ bi fii mu toog mu mën a supporter lépp lu waa dëkk bi di def rek am na ceeg ñoom ndax wér na ko ni lu ñu def lu ne bëgg bi nga rek moo tax te Cheikh Ibra dafa waxoon ni yooni xumb te dagan yoonu Baye Fall mooy xumb te dagan ndax xumb ba noppi dagan liñ ci bëgg a wax lépp ci Cheikh Ibra ak pastéefam xajul ci jataay bii ñu teew waaye ñu leen di xamal ni Cheikh Moustapha sëñ Khalifa bu fekkoon ni tu tànkam bii muy Mouhamadou Lamine Baara mu tudde ko wuy juram su ko yebaloon moom dong ñu ànd ak délégation yi indi ko ni la sëñ bi kii la yebal mu wér ñu ni dina doy sëkk rakkam ji di Cheikh Bass mu tuddee ko Cheikh Bassirou Mbacké le porte parole tout tànk la waaye bu ko yabaloon mu béy sëkk ñu naan déet mu ànd ak sëñ Abo Mbacké mii toog ci wetam moom Alaaji Baara am yar am teggin am xam-xam jàng jubóo magam moo tax fu mu jëm muy ànd ak moom loolu doyoon na waaye yamute ànd ak soxna Ami Sarr ñi nga xamante ni bu ñu nee Sarr rek xel yëpp dem ci Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ woy juram di lépp mu wàññeeku woy juram wu jigéen Serigne Fallilou di woy ñu dem ko Cheikh Moustapha Mbacké mi ngi nii ñëw ànd ak doomam sëñ Jiili Mbacké moom Cheikh Moustapha Mbacké aji nen ni Mbacké moom soxna euh, Khady Bousso turandoom yaa ngi fii macha allah. ñëw na te loolu lépp xalifa yaa ko liggéey kër ga tudde nga leen di doom macha allah liggéeyloo nga leen ci kër ga li ci des nag muy jëmm ji ma muy sëñ Modou Ndiaye di chef de village su Alaaji Baar mu doyloo woon ko jox ko suufu Touba ku mu fa dagal kër lew na la bi mu fi jógee Cheikh Sidi Muxtaar ñëw confiance ba ñu amoon ci moom ñu bakkoog moom ngir ak jubam bi mu fi jógee. yàlla dogal na kii fi toog bi Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg ci wér. amiin noonu la ko bàyyee ak liggéey boobu mu yore ko waaye lépp ànd koog Cheikh Moustapha Mbacké mii di déglu ndigalam muy sëñ Mourou Ndiaye mii bu ko yebaloon moom doomu mu doy ànd ak kan Serigne Touba Syll mi ngi nii Serigne Touba maamam ndax maamam Serigne Touba mooy waajuram lijjanti ko xaju fi bu ko yebaloon moom doomu mu doy jëm jii di sëñ Dame Ngom ñëpp xam nañu ko moom. mooy balaa droit sëriñ bi l'homme de confiance lu sëriñ bi soxla mooy magasin am ak këram yëpp caabeem la koy jox ni ko demal ubbi nangam joxal diw nangam ak kan sëñ loo mi nga xam ne ko ne xamoon na ko ma nga nee taxaw ku xamoon alaaji baara xam nga loo yoroon magasin alaaji baara yëpp di ko jub am yar ak i teggin macha allah defe naa ni jëmm jii ma àndal muy sama doom moom ñëpp xam nañu ko. muy sëñ Mor Kase jànkatu xasaay maa ànd ak moom biig ñu nga fanaan jeewal ñaari fan yëpp jeewal la ñu nekk ajjuma ak biig ci samedi bi ci kan sëñ Mor Abdul Muhayminu mu Cheikh Murtada Mbacke ñuy taxawal jeewal bi ñuy egg si tubaab bi une heure jot na ay deux heures daanaka dallu jot ñu ko def xëy ànd ak Cheikh Moustapha ci ak baaxam mu jaar njaareem ci taalibeem boo xam ne yàlla dafa dogal mu wuy ji boromam te moom du tànkam lu leen ni taalibeem mu jaar fa ñu denc ko ca njaareem bokk na ci li tax ñu xaw a gën a naaje mu ñëw fii tey ci liggéey bi kon ngir jëkkante ak taabi xalifa dañu lay xamal ni man day aw ma sa gërëm ndax sani ma ko waaye ki la war a gërëm mi ngi nii waaye taalibi yii ànd ak sëriñ bi day ñoom ñëpp seen xol sedd na li tax sëriñ bi di ñëw indi gune ya ba indi ay soxna di njaay doomam yu góor yu jigéen dara waralu ko dul xam gu ñu xam ni nga mel ca kër ga ci gàttal ñàkkul ni am na kàddu yoo xam ni di nga ko war a wax ci sëriñ bi wax nga ma ko léegi nii dinaa def lu ma mat a wax lu ma mat a def mooy sëriñ bi dina toog ma mot li sama yéene ci samay kàddu dama jàpp nag boo ñu ko mayee ñu ubbee xasida yi sëriñ Tuubaa rek. man sannani xayra xadimin Mustafa fa innani axdimu bima stafa

foofu nga mujjee fi nga fi nga mujjee fa laay dëkk ngan gi nag ngan gi maanaam gàttal bi nga ne ne mënoon ginnaaw dañuy xool. suba ko mënoon bu dikk fii ñu dañuy doxe Mbàkke toog loolu ba fii xamul tax sëñ Tuubaa fi dikk dana la wax ne lu tax sëñ Tuubaa fi dikk sëñ Fall sëñ Tuubaa fi dikk sëñ Fallou fi fi dikk daa la wax ci lu wér barke sëñ Fall mu ngi nii toog musuma koo ŋax ci sama adduna ne ko dama bëgg nga gane ma musta am wax naa ko alaaji baara ñaari yoon bi ci jëkk fii laa yebe oto daayira ñu dem jëkkee ca kër ca daara ja ak ah, daaru mi na mu yendu li ñu berne ba ngoon daal di ak man ba ba ñu ma ñu ci ma jox ko mu ñaan soxna kenn ku ca sa doom bokkoon di xam nga li ma la wax bu wér kenn ku ne ci tuut tànk mu ñaanal tayalu ci dara ba mu màkk ba ma den rek moom ma ne ko mbàkkee day bëggoon naa nga gane ci réew ma loolu man maa ko wax ci sama dàll mu ne waaw dinañ la ko defal waaw dinañ la ko defal ñu ne fa mu ñaanal ñu ñib si ba ko ñaareel ma tawat fii juróom benn weer ba ma sonnee fii ba sonn ci biir kees bi ki di suñ bàyyi ci jëmm ji nga xamante ne baayam moo doon moo toppoon ci baayam ñu ko wax sëñ Baara Ndiaye sëñ Baara Ndiaye la woon Cheikh Modou Ndiaye maam Anta Ndiaye maam soxna Ngom di seen woy bi seen bàyyi sëñ Abdoulahi Ndiaye tuddoon ku ñuy wax Ngor Galas Ndiaye dëkkoon ca Ngaye daal di xëy ci gàttal problème am lépp daal léegi ñi mu àndal jamono gisu leen ci li mu yoroon jaraaf nga lépp mu ko dabi seen jaawal boobu sëñ Tuubaa ngi at yii ñoom yóbbu sëñ Tuubaa ko yóbbu mu nangul ko mu jëbbal ak wàcce ko ci ñetti weer boole ko fanweeri góor yàlla góor yàlla ak juróom dañ leen dama seen ngërëm ci Ablaye Ndiaye mooy seen cër bi ñu am ci sëñ Tuubaa tey ñoom ñii ñaar fukk ak juróom ndax dundam ëpp na lool tàggee man maa ko bind ci ndigalam mu jo mu yënne ko rakkam ki ñuy wax sëñ Fallou Ndiaye ñu ko alaaj saar ñëpp ko rajo ba ma sonn fi ma sonn moo ma yónnee ma dikk mu téye ma fa xam nga yeewi màggal la nekkoon ci man lool ma dikk dem Tuuba màggal ga paas ma toog saa kër sëñ si dax jóge fa dem bésub àllarba daal jàll Dakar def fa ñaari fan jóge fa wëññeeku kër Alaaji Baare bi ma si biir kër kër Sëñ Fallou bi laa jékki ñu ne ma tey la àllarba xanaa xamoo ko woon ma ne dama ko fàtte am na ku ma àndaloon mosu gis sëñ Baara mosu gis sëñ Fallou waaye daf ne daa bëgg sëñ Fallou ma ne ko da ngaa bëgg sëñ Fallou danaa la woon kii sëñ Fallou ndax ma àndoon rek moom ba ci Alaaji Baara biñ demee ci kër gi ci ginnaaw si Sëñ Abdoulaye bi ma àggee ci sëñ bi loolu mii moom a ubbi bi ma siyaaree mu ne ma demal xaar ma ci kër gi maa ngi bi ma ñëwee di ko wax ñoom Alaaji ñi gëmuñu ko barke sëñ Fallou bi laa ak oto bi daa taxaw mu ubbi bunt bi ku baax kii dëkk njaarim da ngay fàttali woon moom la woo su gay moom la woo mu ñëw mu dugal loxo ci poos bi génne caabi barab ba ne ko am demal ubbil ko barab ba ne ma soo demee nga sëñ Fallu maa la boole ci moom su la yóbbu ma bi ñu dem mu naa ma yow yaay kan foo jóge mënuma koo toll ba mu ubbee ba dugg it xaw ma lu ma fa wax lu dul sëñ Fallu alaaji baar ne moom a boole ci yow wax ma fa ndax boobu mënuma koo wax damaa dikk fekk leen ci saal bi alañ ñu ne ma yow yaay xarit bi ma ne ma wuyul sëñ bi ma dugg ci biir fekk mu ne woon ma alaaj ñu ma génnaat woo mu génn ay caabi jox ñeent fukk la jëkk a jël génn ne ko dama ñaari musuwaar ma ne bàyyi ma jox mu ne de maa koy jox mu jëndal ma ñaari musuwaar yu yees indi ko alaaji baal ay caabi jox ko ne ko dama ubbil ko néegu bayte bi mosuma faa dugg dama soo demee na nga fi ñaan indi ma ci suuf ma ànd moom foofu bi ma dellusee si ak suuf si ak musuwaar yi dama ñëw toog mun a ma delloo buntu ma ma lokke ci biir néegu biir keneen dugg fa ñu bi mu ubbee bi bi ñu laal la ko tuyaab lu ci kanam daa xuus julli man na ci sàpp gannaaw bi bi mu jógee wala ma daf maa fekk ñu dugg ci biir mu ne ma delloon ma delloon soxna Amina aji Amina andi añ boolu weñu meew yooyu yu yor tuuti tuuti ca lañ def bi da teg lam doon wax ak xaw ma daal di génn sëñ bi laa ji barke lu puus moo ceeb boobu ma àggale ko. ataay ñaari kaas bu mu mos maa ko àggale ba ñaari kaas yi jeex dégg keroog it xaw ma lu ma ko wax. li ma dal ci moom moo ma dal ca moom ndax day kenn ki danaa la wax lu lu tax muy kenn bu jëkkee na ma waaw booy dugg Ndakaaru foofu ñuy jàll weñ yooyu ñuy jàll foofu ñuy wax seeti xutaan foofu moom xanaa isinu feer la moo tax ah foofu dem Mbàkke société bu ñuy wax entre euh, société ñoo koy jënd di ko jàll foofu di ko jàllale Dakar di ci xelle ay paane weñ ay satala weñ ak i ndab mu ne ah, dama foog ne isinu feer la moo tax keroog bi mu wàccee liggéey ak mu wàcc ñu ngàqoon jëmam bi misaal ma def ab ay weer jaar bu dem Dakar mu xamul boo ko xool la ma xool muy isinu fer soxna may mu may de këram daal di jëm xamul la ma yéen doog yow kere laa ko ñaareele wax ma ne ko man de Mbàkke damaa bëggoon nga garañ téeméer moom mu waaw duñ la ko defal duñ la ko defal boo bay ñaari yoon jeex na wax mo ba mu xëy làq jëloon ci say ñu toog fii guddi gàmmu seen alaaji suñu mag bu baax ji di gàmmu fii gàmmu gi muy defal waa dëkk ñu fanaan fii ba fajar ñoom seen mbay jooju ko jàng ba fajar ma dugg ci kees bi di dallu damaa dallu ba 3 heures ci bëccëg biñ ma naan pàkk pàkk jógal ñu añ booba la ma loo la ma lu ma ci ci ma añ ma ne leen ci biir añukaay bi laa de sànni man damay dem Touba de damay siyaare ci sëñ bi ñu àggal ma dox ba jaajaq oto yëpp ma bàmbe ma wéy dem Touba. timis laa agsi damaa ñëw ba garas jël ñaari xaal bëgguma ko wax xam naa ne loolu moom xanaa nga dimbali ma la ma ci doon bañ a yàqu li ma bëgg wax laa bëgg a leeral foofu. bi taxi bi tax na ci buntu kër soxna aji nga ne mbàkk mi mu àndal ci biir kër gi tey. moo ma kafle xaal bi ma ne ko sama sëriñ ëpp naa am mu ne ma déedéet ma la ko yor mu jël benn ma jël benn sëñ ci biir oto lañ ko fekk ci biir oto bi ma ne a dem ci timis bi ma teg xaalis ci suuf siyaare ko ci biir bi mu ne ma maa ngi ñëw léegi ah bi bari ko soxna ay ma yóbbu xaalis moom mu arrière oto moo dool mu dem dikk fekk ñu bi ñu reeree ñu koy at euh, daaw de di ataay ma toog ba guddi gi sori ci la ma woolu ma dégg toog ni mu ne ci matelas bi jublu penk yor kurifam bi a biir mu ne ma bu cent mu ne ma boobu décembre mu ne janvier mooy teru bu teroo rek dinaa wax daam nga mu mu la dama lay gane si ca bi kan moo ko waxoon alaaji baara léegi alaaji fàllum suñu tubaab dane dañ fene naa ma fàllu fàllu ngeen man néewuf maa ci biir suñu tubaab sëñ am day day sëñ Tuubaa du mm-hmm. lu ñu sikki sàkk mm-hmm. lu ma wér teewaay ba tax loolu mënoo caa puus ba jàpp. te moom sëriñ Baara ak mboolem njabootam gi mu ànd ñu bàyyi ko Tuubaa sëñ bi noo ngi lay siyaar baax na ki ñaan sunu borom fan gudd lool ma waxoon ca néeg ba rek lépp lu yàlla defal sëñ Fallou Mbacke yàlla bu la ci gën a ëppale jërëjëf Mbacke. suñu xool sedd na sunum xelit dal na dama wax ne bokki teere bi ne bokki jullit yi taalibe ak jullit du leen wutale ah, moom day am kilifa kilifa ga naan ko defal moo def mu naan ko bàyyi mu bàyyi loolu nag moo di ak taalibe waaye koy julli moom julli rek nga waaye nag boo gisee nun ñu tudde sunu bopp ay taalibe ni ñaan ñu nangul na ko li tax ak taalibe gën a noppaloo mu ngi mel ni ko dugg saxaar dootoo yenu say bagage boo duggee saxaar bagage da kay da nga ko kon taalibe goo xam ne dafa joxe boppam te xam na ko war a digganteem ak sëriñ ba te mu di ko def noonu rek la mel kon sëriñ bi noo ngi ñaan nga nangul sunu taalibe sa baaram mi sa xalifa bi ak njabootam te ñaanale leen nu gudd lool te man ak wér wax na dëgg nii mën a def sax baax na waa kër sëñ Madou Bousso lañ fii ñii fi ba yëngu bi ñëpp xam ne kër gi sëñ jëndee ko lu mat a def la waaye nag lépp gënut sëñ Tuubaa ndax sëñ ma sëñ Madou sëñ nit ba mu ñëw fii sëñ Madou Sarr koy wax sëñ Modou Moustapha sëñ la sëñ Fallou sëñ Tuubaa la yow nag yaay sëñ Fallou mu mel nag ni barke bu yemee ci kenn barke nekk gu fa barke bu yaatoo kenn ku ne cay mas waaye nag ndokk Mbàkke ne la xalifa seddoo noonu seddoo la nuyu bi mi ngi ci jiital xalifa mi nga xam ni moo waral lii xew te mu jàppoon ko ngir def ko muy Serigne Toubaam doon Serigne Fallou ba at mu nekk mu fësal ko ci biiru njabootam ak i bokkam loola moo waral jataay bii tey kon xalifa sëriñ bi nee na ñu ngi lay sant ci loolu ah, di la ci gërëm di gën a wax nit foofu nga wax rek foofu la ne moom daal li yitteem mooy addiya moom ab sëriñ sëñu koo bañ ndax dañ leen a moñaaleel waaye moom li ko ñor ci nit ak ku mën a doon ba xaritam sax boo xam ni du ab taalibeem mooy na nga dëgg na nga am fulla na nga am lislaam na gore na xam yaay kan loolu daal mooy jikko sëñ Moustapha moom nag foofu la ne boo ko fekkee ci biir baayam yee nga xam ni Serigne Touba moo jur seeni baay ñoom ñooñee la def ay nawle fas yéene buñ ko fekk ci luñ naan ko bàyyi ko bërki démb képp bi mu demee makkatal mu karam sëriñ Muntaxa yëkkati na téléphone woo ko wax ni ko foofee nga nekk yaa ma fi nekkal loolee nag dayo la bu rëy ci nit ku dëggu sëriñ bi moom boo koy seet jërut ngay sori boo xamee ku dëggu xam ku am jom xam ku am lislaam xam ku bëgg sëñ Tuubaa xam jàmbaar kooku mooy Serigne Moustapha Alaaji Ba kooku nag ku ànd ak moom waroo ni yàcc waroo biddanti waroo yox-yoxi waroo dànk daay ndax moom foofu rek la nekk yaakaarul kul Serigne Touba wóoluwul kul Serigne Touba bëggul du doy Serigne Touba li jëntiwut keneen nag ku dul ku jëm ci Serigne Touba kooku mooy Serigne Moustapha Alaaji kon nag moom ci loolu mënu nàmbatal noo ànd koog moom moo tax nun ñii waxtu wu nekk suñu jógee gisuñu lu may sëñ Moustapha kon Xalifa fii nga nekk fi la fi nga diir fi nga jam foofu la yëf yi ne loolu ñuy wax naan euh, euh, mbir mi euh, xaw ma ni ñu koy waxee ci ci warab daal waaye li gën a wér te wóor mooy fi nga teg sa tànk bu ko teggi kon Xalifa sëriñ bi gërëm na la gërëm na sa bokk yi fi ñëw yëpp nee na nag ñu leen ñaanal mbooleem ku fi indi aajo ak bu mu a doon ak lu mu rëy rëy bul ni xalaatuma ni bis bi mën na ko fay ndax bis bii kat moom du bisam bisub Serigne Touba la bisub Serigne la bisub Alaaji Baara la te ñooñu kenn kenn ci rek mën naa faj lépp kon ñoom mënuñoo songandoo soxla te soxla soosa di des kon nag lu ngeen ci faj ak lu ngeen ci aajawu mi ngi ñaan ci yàlla loolee suñu borom defal leen ku fi andi ñàkk yàlla bu ko gisati ku bi indi gi yàlla bu mu ko gisati képp ko xam ne indi nga fi jaaxle yàlla na la jaaxle gi jëm sep penku nga jëm sow bu ngeen daje mukk sëriñ bi nee na mi ngi di ñaanal yéen ñëpp di ñaanal ilimaan gi nga xam ne moom la fi yàlla teg ak jàngalekati alxuraan yi nga xam ne ñooy saggone yi ñuy jàng alxuraan di leen jëmale ci yàlla sëriñ bi nee na nañ gën a góorgóorlu ci loolu sëriñ bi nee na mbooleem ñii fi nekk ñëpp mi ngi digal boppam di digal ñim mu ko war a digal ak ñi nga xam ni suñu boroom def na ni ñoom du ñu war nekk ci diine lislaam di dox la ko lislaam waxee sëñ bi nee na jàpp seen lislaam bu baax bu leen ko fooyee dara ngeen téye bu baax te sëriñ bi bu baax a baax na moom daal fi muy daaneele ay kàddoom mooy yéen ñii fi toog bu kenn wéet bañ yàq sëñ Touba ci jëmmam loolu rek mooy liggéey bu kenn wéet fi barab bañ yàq sëñ Touba ci jëmmam nee bu loolu amee rek dara du yàq kon nag gàttal gi ndax timis jaa ngi ñëw nee na mbooleem ñu fi toog nag ñëpp nee na Serigne Touba sëñ Fallou dafa mos a war donga yi muy fii ba ñu ñëw ñoom ñëpp ñëpp rajo rajo mu ne déedéet tey du ma nuyu kenn du ma wax ak kenn dara ñaari baat rek lay wax liggéeyal ngeen Serigne Touba. mom mu gërëm leen yalla gërëm na leen yonent bi gërëm na leen sëriñ Tuubaa gërëm leen man mi ma gërëm leen man sëriñ fall tay nag dama jox kel la waaye nak kuma xol rek sa aajo fall kon fi ko tek mo yalla dafa sak rab mu ñu wax ta on un amul ay wenn yu mi nampalé waaye su foré ba ñew day xol doom yi rek ñom ñep ñu rek mu ni fofé nak sagam aw rab ko man gën doomi sëriñ Tuubaa ko nag yéen jërëtut raj raj jërëtut xool leen ngeen ne jàkk sëñ Moustapha rek wax jooju dellu si na wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf nag nañu marché li ca woyof ga daan wax ni sama signature ak sama coup téléphone lu muy xañ nit du ko ñàkk kii na noonu la war a mel ndono dafa foor Yakıp vermelisin. Amin. Yakıp vermelisin. Amin. Yakıp vermelisin. Amin. Amin. ولا درجان فضماه رسول الله مليون بدل عن مالك بمرثياتي خليفة الشيخ بامبا سلاياتي ماذا تاريخ ينبدون لي ولا تبن مرثيا عم ميمان ci dara ja am ngëneel yu weesoo xayma cey yàlla cey sëriñ bi maa ka waaru warkat bu mag ba war na tuuba ak daaru kadoon sangu murit yi tey maj soobu jëm ci boroomam yàlla ku nekk lu mu deeti jublu nay lu mu xam mbaalu ko moy du jaglu xasu fanaan ba wuutu wan